laqil lisaani waxlulan min xulun qad wacalhu daakiran wa shaakiran abad wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shian sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li qawmi wa an akuna qaadiman fi dawmi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 lenn na ci li waral màggal gi ndax mbir boo ca yëngu it léeg-léeg nga fàttaliku eh, li ko waral ndax lu yëngu ne la ko yëngale ko ëpp doole loolu da ci am solo màggal gi kat li ko waral mooy sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul day xéewaluk suñ borom di yërmandeem ah jamono tolloon foo xam ne ni lëndëmoon na lool ba mbindee fii nekk ci ay loraange kenn xamatul foo jëm suñ borom tabaraka wa taala baaxee ñu ko ngir mu ñëw leeral jamono niki sangam bu sallallahu alayhi wa sallama nam fekke woon jamono lëndam mu leeral si ko yeesalaat diine ya nga xam ne ni moom la yonent ya ko jiite woon daan woote te mooy lislaam rek Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax daanaka ay mbindam li ciy feeñ mooy baatub tabyin wala baatub tajdid waaye tasis doo ko ci gis sosut dafa yeesal sunna si bi lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatul xarra wa inni ahmadu nawabatuhu kulli min allaxwi taharat wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu yooyu rek nga ciy dégg ah, ah sëriñ Moussa sax am na fu muy junj di ko wax ne ko yow yaa donn yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi fi andi yonante bi daal moo la fi andi mu naan yow yàlla yow mi defoon xaatimul ambiyaa yi yaa dellu def xaatimul awliyaa yi yaa yónni woon muhammadul makiyu dellu yebal muhammadul makiyu kële defar Quraysh nag Adnaani kii moo defar Bidaani ak Sudaani kële ma yoon ya seen kiimaan ya kii moo defal xaw seen xarbaax ya kële yoroon taybata booleeg Makka kilee yoroon Tuubaa yoraale Mbàkke kële taxaw baxawlu toolub sunna kilee fi bayluwaat kilee fi ñëw bayaat fi toolub sunna kële rañaane Makka jëm Madina kilee rañaane mbàkke jëm ci diina këlee waroon ca alburaax jëm asamaaw kilee waroon ca gaal ya noonu ya di ko laaw kilee jihaar gaay di far ay bakkan kii moo jihaar ay at jihaari bakkan këlee fi daa xadis xamal nu yàlla kilee fi ñëw taalif xamal nu yàlla billaahi kookaay xayrul anbiyaa wallaahi kii mooy xayrul awliyaa kon la fi indi woon yonent bi sallallaahu alayhi moo ko fi indi mu mel ni itam moom sëriñ bi am na fu mu bind ne sëñ Modou Lamine Diop Dagana mi ngi koy nettali ci Irwa na Nadim di wax ne yéen ñi aju ci man bu ngeen aju wutoon ci man da ngeen tàbbi sawar bu ëllëgee donte da ngeen dem àjjana yi waaye da ngeen jaari safara doon doog a dem àjjana dal ne bi ngeen ajoo ci man it bu fekkoon ne liggéey bii ma liggéeyale woon suñu borom ci weeru safar fukki juróom-ñetti safar defuma ko woon kon danañ ànd ñun ñëpp tàbbi sawara ndax danaa nasraanu te kon yéen da ngeen nasraanu moom la sëñ Moussa naan ne dogoon ak dem gi wolof nasraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraanu ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di dagu chef yi wuur yi faf nasraanu ñiy jaxasoo kàngam bi ak nasaraan yi ñiy defi xawd yi ñii di ànd ak naar yi yii doom doomi soxna daldi sampi daara te dong yaak jigéen ñi mel ni saara siri mu ànd ak saara yenn caawa ndaw jaxasoo bamba defat ak caawa sëriñ si ànd ak wóor yi faf di daane ña lay di dox di fon ña doxaane ña di wàññilu ña lay bandaani ña lay di tariyaaxi ña lay waañaani góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo di jaaxaan làmb yu gor sabar yi yépp jaaxaan kenn amatul xasdu li wàcci laahi kaa nga ki fëri faf di njaa jaanit laahi lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sowu jant fépp mel ni làmbaay Cheikh Bamba ma di ñaan ci barkib jili na yàlla may shafiixu kulli jili may fii suudaani may ramu xarnu bi anin niiraani buur yàlla daal di signé jox yónneen ba mu signé gaaña daal di jiital Bàmba kon nag liggéey bi lum lum lu lum lum siñante ak boroomam la signé ko ak yonent bi sallallahu alayhi waaye bu sottee kat ba mu sottee mbindeef yëpp ñoo koy jariñoo àdduna ak àllaaxira muy liggéey boo xam ne nag ni mu ko waxee rek ci amu jay sosin la feeñ waaye nag ah lu jiitu Ahmadu Aïcha Sall tamit mi ngi woon ci ab xolam suñu borom dencal ko ko ci ab xolam loolu moo ko sonaloon sax lool ci ak njëlbeenam ba léeg-léeg mu mu jóg jëm fenn mel ni ku xamut fi mu jëm boobu liggéey bee ne ci moom te waxtu ba mu war a jóg defi ko jotugut moo tax bind na ko sax ne wa asharal xidmata ama jaysosi wa xalbuhu admaraha min asosi kon ci asas ci la liggéey bi nekkoon ci moom sun borom xamal ko ko waaye nag waxtu wam ko war a def jotugut kon nag ba mu jotee moo waral nag mu daal di jógee fii ci mm, Touba ci Daarul Xuduus dem Mbàkke Bari ngir jaa jaaree fa ngir liggéeyale yàlla liggéeyale yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye liggéeyale mbindeef yëpp rawatina jullit ñi rawatina murit yi kon nag incha allahu foofu mu tàmbalee liggéey bi nag bu subaa danañ ci tàmbalee indi sunu kemtalaaye kàttan ak lépp loo xam ne nii rek jàppandi na loo xam ne nii nag ci lu wér a wér lañ koy teg ci téere yi nga xam ne moom la ñuy gëstu ak waxi al Cheikh Mouhamadul Fadal muy wax yoo xam ne nii dañ koy dégg muy wax te la muy wax it moom moo ko fekkee kon loole incha allahu des na ci mën a sukkandiku fàttaliku li waral màggal gi. ñoo ngi soññaat sunu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ci liggéey yëpp waa daaray Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ak daara ji xam ne nii.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 Euh, xam nga ne démb ci suñu mbégteem safar andi woon nañ lenn ci melokaan yi nga xam ne ni moom la Serigne Touba fekkee woon senegal maanaam bi muy bi muy bi muy feeñ suñu société euh, lim doon dund ci ay melokaan ak ni ko soppee ak fi ko indi waaye day jaadu itam ñu delluwal gannaaw tuuti euh, fàttaliku démbi senegal ak lislaam nan la duggee ci réew mi ak yenn jaar-jaar la fi def ba agsi ci ba ni Sëriñ tubaa Xaadimu Rasuul ñëwee leeral ko nañ wax nañ ne lislaam teel naa dugg Sénégal lool boroom xam-xami taarix yi dañoo wax ne ci alxarnul awwal ci la lislaam dugg Sénégal maanaam premier siècle ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ndax wax nañ ne saxaaba bu ñuy wax xuqubatam xuqubatam nu moom la ay soldaaram doon dugg ci dëkki Afrique yi di fi yaatal lislaam boole ko di commerce mm, ak di eh, jëfee seen xam-xam yu sell ak dëppoo doon benn ni ko sëñ Tuubaa waxee ci ndax jox xabaay xaaji wax ne saxaaba yi di gox yi lëndëm yu bari niñ ko leerale mooy xam-xam ak jëfe ak dëppoo bay benn waa kashafu du junnatal du junnatal afaaxi bil ilmi wal amali wal wifaaq kon noonu lañu dugalee lislaam Sénégal euh, ci alxarnul awwal ndax xubatum nu naafix moom mi ngi génn àdduna 683 ci juddu yonent yàlla Isa alayhi salaam kon 683 fekk na lislaam dugg Sénégal kon loolu yàgg-yàgg la booba nag bariwu fi doole waaye bi ñuy ñi ñuy wax almurabituuna bi ñu ñëwee jógee almaxrabul arabi maanaam jógee Maroc ci la lislaam gën a yaatu ba am fi doole lool ba mujj ñu créer li ñuy wax état islamique boo xam ne ni Cheikh Souleymane ibn Racine moo ko jiite woon nekkoon amirul muminin ci atum 1776 atum 1776 ci la état islamique juddu fii ci senegal waaye naka noonu itam Sénégal amoon na ay jaamukati xërëm ak nit ñi bon ñoo xam ne de lislaam yitteelu leen ba tax na dañ daan xeex ak nit diine yi ànd ak tubaab yi tamit ni ko alxuraan waxee rek buur yi moom bu ñëwee ci dëkk dañ koy yàq la fa gënoon a baaxee dañ koy def muy la ca yées indal muluuka isaa daxalu xaryatan afsaduha wa jaalu aishtata ahli adilla wa katalika yafaaloon ci loolu lañu nekk di xeex ak ñoom ba ci lañ rey amir boobee di Cheikh Souleymane Ibn Racine ñu daal di fal ku ñuy wax almaami abdul xaadir kan mu nekk amirul muminin moom it nekk ci loolu ba ni tubaab yi colonialiste yi dugg see nag ci réew mi daal di tas état islamique boobu ci 1881 kon lislaam nekk na Sénégal 105 ans yoo xam ne ne état islamique dafay nekk ñuy àtteewoo diine 1776 ba 1881 ça fait 105 ans. waaye nag bi tubaab bi ñëwee nag la ñu yàq loolu lépp daal di xeex nit diine yi ànd ak buur yeeg jaamukati xërëm yi te booba sëriñ si ñu ci bari amuñu doole bariwuñu ay taalibe noonu kon loolu bokk na ci li nga xam ne nii moo tas état islamique boobu yi waaye nag ñi fi jotoon nekk it dañ doon résister di di xeex ak tubaab yi waaye ñu ci bare bare dañ leen rey ñii ñu dàq leen ñii ñu génn leen bokk na ci ñooñee almaami Souleymane Baal Cheikh Souleymane Baal ak almaami Abdul Xaadir Kan ak Cheikh Omar Fouti Taal Maba Ba Ahmadou Cheikh ak Mouhamadul Amin Dibaasu ñu ñi ñii xeex nañ ak ñoom xeex ak tubaab yi waaye ñu ci baree bari dañ leen a faagaagal Cheikh al bi mu ñëwee nag sunu borom tabaraka wan ko weneen yoon ah, jaar ko ci yonent bi sallallahu alayhi mu wax ko ne ko nii ngay doxalee muy li ñuy wax jihaadu nafsi jihaad ci xam-xam ak ragal yàlla ndax kat bu tege woon cim xel rek boo fekkee ñu la jiitu te lañ bëggoon rek nga bëgg muy yëkkati lislaam ñoo ñëpp ñu jaar ci wenn yoon woo xam dañ caa fakkastalu wala ñu am ci ay nattu xel mu rafet wut ngay jaar foofa war ngaa mën a teggi jaar ci weneen yoon yax ndax nga jàll waaye rawatina nag ba mu ëppee am xel tegee ci ndigalu suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu bind ne sama jihaad ji de moo fawxa moo kawe jëpp jihaad yoo xam ne ne boroom xam-xam yi ma jiite woon doon nañ ko def jihaad yi al maadi yafuuqu ma mina madaamin al jihaadi inda al ulama moo tax mu wax tubaab bi na leen nag yéen ñi yéen ñii bokkaale yàlla di ko wutal ñett te muy kenn génne ngeen ma de te tegu ko ci lu dul ne jaamub yàlla la buy liggéeyal yonte ba noppi di jihaad daal leen li ngeen wax ne damay jihaad nag wax ngeen dëgg de juumu leen waaye nag sama jihaad de ci xam-xam ak ci ragal yàlla la tegu te yàlla rek moo tax may jihaad ci xam-xam ak ragal yàlla lay jihaad doon jaamub yàlla rek rek rek rek waaye doon liggéeykatub yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom lay junj naan yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladul waladul lahu aw walidu axrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu wa maqaalukum inni ujahidu saadixun inni li wajhillaahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan qadiman wal muhayminu shahidu kon ko kii nag jihaaram jooju nga xam da ko réussir te da koy dox di réussir ba faw kooki mooy borom liggéey bi nga xam ne ni ci fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu nekk di safar ci la jógoon nag jihaatam jooj yi muy junj ak liggéeyam bi mu liggéey ko kon ci fan yooyu lañu ñu nekk di ko waajal ñoo ngi soññu ak di sant mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ci liggéey bi nga xam ne nii ñoo ngi ciy jàppale waa daara Hikmatul bi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ba taxawal nañ ci daara joo xam ne nii mbokki jullit yi ak bon volonté yi ak mbokki taalibe yi ak ñi nga xam ne ni dañuy liggéeyal yàlla ci ñoom la sosoo ku ci bëgg a tàbbal sa doom wala nga bëgg ci ay leeral nga woote ci 77 633 77 56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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ausu billahi min alseytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim